site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top plus lu jëm ci walu actualité sin TV nek fichier ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko ginaaw biñ santé yalla julli ci yonenté bi sant suñu ñaari wajur ñu ngi nuyu ñëpp di jital ci nuyoo bi monsieur Omar Ba maire de la commune de Ndiop di jital di nuyu kalifa diiné yi di nuyu conseil municipal yu nekk fi di nuyu également jeune yi di wax gàcce ngaalaama jigéñ yi di nuyu ñëpp tay nak dañu am mbékté ak banéx vraiment ñun ñoo sakku conférence de presse bi yalla xamna né biñ koy def sax maire yëgoo ko dañ ko def ngir manam sargal excellence monsieur Macky Sall mi nga xamné mom moom yoron Sénégal 2012 ba tey liggéey fi mu liggéey bu mucc ayib buñ jógee foofu it dinañ sargal suñu maire muy jàmbaar jàmbaar Thiawara muy monsieur Omar Ba maire de la commune de Ndiob nekk président association de maires di Sénégal bu buñ jógee foofu également dinañ wone suñ cofeel suñ engagement ak suñ détermination ñun ñëpp ñu suudeandoo xàcceandoo dóorandoo ànd ak moom ngir lan élire Amadou Ba koroog dimanche ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent loolu mooy solo woote fi ñuy njëkk rek mooy olof Njaay dafa ne lëg bu lekkee alom na ko gërëme coy tey boo xool Sénégal am na juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom-ñaar Ndiob nekk ci biir mais bi Macky Sall ñëwee 2012 li Ndiob am ci Macky Sall benn commune mosu ko see am loolu mën naa ko wax te yaakaar naa bu fi Macky Sall nekk doon Omar Ba nekkal ko fi duñ ko am bu ñu tey maanaam euh, ay pàcc la ñuy jël ñu njëkk ci mbirum électrification rural muy courant bi am nay temps dañ doon dégg courant rek am nay temps Ndiob ñeenti dëkk moo fi amoon courant wala ñett muy Ngalañ Daaru Salaam ak Ndiob village mais tey dëkk dëkkaan boo xam ne sax ñaari kër la am nga courant tey gis nañ ni ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett am nañ courant te ñeneen ñi amul courant incha allah programme bi mu ngi si te dina ñëw te loolu kan moo ko waral son excellence monsieur Macky Sall ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax. beneen bi mooy tey yaakaar naa ne tey bu ñu noon poste ñett ñoo doon fekku ci poste ñuy liggéey tey buñ xamee bourse familiale maanaam weer bi dee nit ki dem ci ci poste bi ñu jox ko valeur juróomi junni mu mën cee jënd. lu muy jëfandikoo kan moo ko fi indi Macky Sall loolu également war nañ ko see gërëm bu ñëwee également ci mbirum njàngale mi man jàngalekat la am nay temps vraiment suñ rakk yi bu ñu amoon fii BFM dañu am problème ñu jàng ji jaxaaw wala Diourbel wala Gossas mais bi nga xamee ni ñaan nañ ko dafa jël suñ seem bi mu defal ñu ko lycée comme ni ko Mbéla Kajaw amee jawle amee ko ak jaxaaw loolu yaakaar naa dañ ko see war a sant bu baax a baax bu du doon moom bu ñu amatee BFM dañuy el di dem ay Jaxa wala di transféré di dem ay Gossas ak Diourbel benn bi mooy employabilité des des des jeunes tey si ah, xëyu ndaw yi euh, jeunes yi nga xam ne ñooy liggéey si commune bi jóge si dëkk bu nekk ak FERA bi yaakaar naa loolu monsieur Macky Sall moo ko fi indi ngir jàppale askan bi kon nag day baax vraiment ñu lu liggéey bi beneen bi mooy bu ñu demee ci affaire santé bi am na lu ñu wax la gratuité des soins. tay amna xalé yo xamné amna âge bo xamné dem dispensaire fay Amna également le plan Sésame xam ngeen ne papa yi ak suñ nijaay ak suñu ak euh, suñu yaay bu démé hôpital yi am bo vraiment duñ ko duñ ko fay duñ ko fay excellence Macky Sall def Dakar wala ko Sénégal to yakarna né nak ci Sénégal la Euh, mooy li nga xam ne def na ko également ci mbirum njàngale mi parce que man nag jàngalekat laa li Macky Sall def sur la fonction la revalorisation de la fonction enseignante amul benn président boo ko fi def tey enseignant bu nekk rek weer bi bu dee koppari ngay feyeku yaakaar naa ne bi fi Senghor nekkee ak Abdou Diop ba ci Abdoulaye Wade benn enseignant mosut koo feyeku parce que li ma koy li may wax triché wu ma parce que jàngalekat laa xam naa li may wax bu bi mën ci maire yi muy monsieur Omar Ba maire de la commune de olof Njaay dafa ne pëccum liir bu neexee yaay yaa jàpp si mbagg bi Ndiob bu développé rek Omar Ba Macky Sall moo jàpp si mbagg li mais Ndiob bu développé Omar Ba moo nekk suñ maire kon dañ ko ci man de bokk naa te bari na si nga xam ne réccuñu li tax monsieur Omar Ba nekk maire parce que tey bu ñu demee ba ne association des maires du Sénégal kan moo ko ñu ci ñun kon dañ ko wax gàcce ngalaama monsieur le maire bi passé bu ngeen dégloo conseil des ministres monsieur Macky Sall daf ko eh, nommé mu président du conseil d'administration du train express régional SENTER kon loolu yaakaar naa nak day baaxati ñu ne gatché galama monsieur le maire monsieur le maire nek nit ko ouverture nit ko dynamique ñun sax ñi nga xam mo nek suñu maire xamuñ ko mais ñeneen ñi nga xam ño dekk fenen kat monsieur le maire bu nekkoon marchandise wala lu ñuy jaay ma maa ngi jégalu ci cadeau gi mën nañu jënd mën nañu ñew jënd ko yobbu ko ci seen ci seen maire yi bu ñëwee ci le domaine social amul ben xew buy am ci mairie bi monsieur le maire diko ko tànqamlu fu xew am mu nekk xew bu rafet bu neex wala safaan bi dina dépêché délégation ñu dem représenter ko mu am lu mu fa joxe te loolu yaakaar na ne nak nekkul ci budget buñ démé ci toilettes la gratuité des des des des latrines xamnañ né daanu dajul suuf mais amna ay couches yo xamné mënu ñu défal seen bop toilette lu mot ñaar téeméeri toilette ak juróom fukk tabax nañ ko te fiñu jëm inshallah bép bépp euh, koo xam sa sa loxo jotul sa ginnaw rek inshallah di nga am latrine loolu monsieur le maire moo koy defal commune bi. wax naa ko sànq monsieur le maire dëgg la état bi moo yor courant mais yaakaar naa ne sa loxo bu guddul doo na a indi courant si sa si sa dëkk te le maire li mu def li jant mu def ba man dëkk ba li ma dëkk nekk ngéngéy am ñaari kër am courant vraiment rafet na vraiment ñu rafet lu liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def bu ñëwee également ci mbirum wér-gi-yaram bi yaakaar naa ne monsieur le maire li muy def ci wér-gi-yaram ci poste de santé yi di leen jox ay médicaments recruter ay chauffeurs mu leen di dawalal def fa ay dépositaires di leen fay loolu gàcce ngaalaama monsieur le maire

tey li monsieur le maire def ci xëyu ndaw yi ñi mu si dugal ak FERA ak ñeneen ñi nga xam ne dafa leen recruter ñu feeku bu ñu ko doon estimer en terme d' argent ay millions la weer bu nekk. addiction d'eau am na ñoo xam ne seen loxo di jotul seen ginnaaw amuñu woon robinet mais tey dëkk bu wax xam ne mu ngi si njob gën la sori même bu nekkee ñaari kër monsieur le maire dugal na fa robinet. machine wal yi bi ko son excellence indee boo joxee machine wal il faut mu ne am fu mu nekk mais fi ko war a tabax monsieur le maire moo doon joxe ciment. fay ñi koy liggéey vraiment ñu defal machine bi benn lieu boo xam ne day tax liggéey bi mën a dox financement des femmes lu mot ñaar téeméeri million monsieur le maire injecté na ko ci commune bi bu ñu demee ci mbirum mbéy mi ay partenaires fu la lañ jógee waaye ay ñoom ENDA Pronat ay ñoom lip vraiment ñëw di jàppale monsieur le maire ci liggéey bi pour vraiment commune bi jëm ci kanam lii moo taxoon ñu ne ñun kat monsieur le maire liggéey ay bii mu def day rafet vraiment ñu toog benn jour ñun man ak samay naataangoo ak ñu nekk salle bi yëpp ñu rendre ko hommage bu ñu jógee ci loolu nag ñun dañoo nekk koo xam ne dañoo respecter la dynamique de notre leader suñ leader bu ne fii la rek fee la moo tax bi monsieur le maire waxee ne amadu Ba la son excellence monsieur Macky Sall choisir dañoo ne monsieur le maire boo tëddee nanga nelew dañuy ranger wu ci yow gunge la ci liggéey bi def ci suñ passeport ba amadu Ba gagné au soir du 24 mars 2024. parce que Amadou Ba bu gagné Sénégal dina avancé plan Sénégal émergent bi nga xam ne 2035 la jëm Macky Sall ko njob dina ci gën a gis. PAM moo tax ñu ne kat monsieur le maire incha allah doo wéet ci combat danañ la jàppale ci saayir baatim pour Amadou Ba gagné yaakaar naa taxaw ngeen pour voter Amadou Ba am na it yeneen programme yoo xam ne PNUD indi nañ ko fii programme de Nations uni pour le développement ñuy liggéey def liggéey bu mucc ay loolu yëpp monsieur le maire moo ko fi indi waa Kuluza ak itam ci mbirum euh, càmm mi en tout cas daal ñun buñ limoon réalisation yi nga xam ne monsieur le maire wax na ko fii def na ko fi dañ koy di wax ba déwén moo tax lii dañ ko de vraiment pour sant ko di ko ñaanal yal na balaa déwén mu yokku xam nañ mébét gi ñu am ci am ci suñ commune bi te yaakaar naa ne bu ñu amoon fukki Omar Ba Ndiob dina melni Paris. site d'information Sine TV nek fi ci diwanu fatik andi leen lu bestak tàkk lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu len di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité Sine TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal Sine TV joko jàll.